muy président de la république alxaaji maki Sall di ko nuyu di nuyu membre gouvernement bi yëpp ñu nuyu leen ziyaara leen jox leen seen wàccuwaay waaye nuyu itam ñi nga xamante ne ñooy autorité yi nekk ci Thiès gouverneur ak préfet ak sous-préfet yi fi nekk yëpp ñu nuyu leen ak maire yi fi nekk yëpp ñu nuyu leen ñoom ñëpp jox leen seen wàccuwaay tey nag li waral woote bi mooy ni dafa am lu am solo loo xamante ne président de la république daf ko defal daara yi yëkkati teraanga ju rëy muy six milliar comme niñ ko déggee moo yëkkati jox ko daara yi am ci loo xamante ne dañ koo jënd ceeb ni nañ ko séddale daara yi am loo xamante ne ne xaalis liquide la ñu def ko ci ay enveloppe jox ko sëriñu daara yi yàlla dogal nag lépp président de la république Macky Sall la def dafa nekk lu rafet dafa nekk loo xamante ne képp kuy sëriñu daara wala sax ku dul sëriñu daara rafetlu nga ko te kontaan nga ci te bëgg nga ci kon ñu ngi ñaan yàlla moom président de la république yàlla na ko yàlla fay ci taraanga bi mu bi mu defal daara di wax ni nag euh, kilifa li mu mën mooy wax def leen la kilifa mën def leen nag léeg kilifa dina wax def leen ña war a def def ni ko kilifa gi bëggee léeg tam kilifa dana dana wax daf leen ñu def noo xamante ne du noonu la kilifa gi bëggee pour nañ ko defe yàlla dafa dogal nag daara yi nga xamante ne ñoo nekk ci Thiès te bokk ci association boobu tudd association daara yi yalwaan mooy ñi nga xamante ne ñoo yor taalibe yi yor pot yi di yalwaan ci dëkk bi dañoo am seen kuréel boo xamante ne association daara yi yalwaan ñu gën koo xam ci association daara yi cosaan ki nekk ci bopp bi nag muy man di oustaz Arouna Ba man maa nekk ci bopp bi jiite leen yàlla dogal nag ceeb bi nga xamante ne président yónnee na ko wala jaarale na ko fi mu ko war a jaarale damay wax ni am na lu ñëw ci dëkk bi waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci association ñun ñoo bokk ci association daara yi yalwaan nun yàlla dafa dogal mën naa wax ni daara yalwaan tey jii bu doon association yi nekk ci dëkk bi bu doon téeméeri daara ñoo fi nekk juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp ci sunu association la ñu bokk kon kenn ku ne xam na ni taalibe yi yalwaan ci dëkk bi bari nañu te ñun ñi leen di jàngal ñun ñoo bokk sunu benn association kon buñ fi dugalee dara loo xamante ne daara yee ko moom am naa yaakaar ni ñëpp yelloo nañ ko waaye ñi yor taalibe yi yalwaan ñoo ci gën ñoo ko gën a yelloo bi président bu dee wax nañu joxe dundu ñu yor xale yi yalwaan nga xamante ne bu ñu yalwaanul du du ñu dund bu président nee na ñu joxe dundu yaakaar naa ni ñoo ñëw ci jiitu waaye bu amee lu dugg ci dëkk bi ñu dégg am ñu am ñu gën a bëri ñu bokk ci association bi amuñu loolu duñ ko noppi foog ñu yëkkati ko ci kaw ba autorité yi nga xamante ne ñoo ko war a dégg jottali ko président de la république moo tax tey ñu woo presse bi ñu xamal leen ni maanaam ñu xamal leen ni recensement bi ñu njëkk a def fii bari na daara yoo xamante ne yëguñu ko dégg nañu nag recensement bi IEF yi ñoo ko def ak IA dañ koo dégg nag waaye bi ñu koy def fa ñu waroon a jaar ba daara yëpp yëg ko jaaruñu fa ndax bu fekkoon ni dañoo defoon arrêté wàcce ko ci chef de quartier yi ni chef de quartier bu ne sa quartier daara bu fa nekk nag ñu ko bindal bu boobaa am naa yaakaar ne daara yëpp danañ leen bind bu ceeb bi ñëwee ak leneen la cay ànd kenn ku ne da nga ca mën a am sa wàll waaye nag maa ngi yuuxu sama baat ci kaw bu yeboo nag séeréer yi ak ñi sant kan jàllo lu leen neex nañ ma ko wax waaye maa ngi leen di wax ni ceeb bi moom daara yi fi nekk yëpp kenn amu ci dara am na ñu bindu amuñu am na ñoo xamante ne dañoo dañ leen a wax ni mbindu mi jeex na binduwuñu loolu nag maa ngi ñaan président de la de bu ko déggee nañ ko corriger nañ ñu yónnee sunu wàll bu ko defee kenn ku ne la nga ca war a am nga am ko ca di wax ni na gouverneur préfet ak maanaam inspecteur yi fi nekk ak sous préfet yi nañu xam ne association daara yelwaan jotuñu seen wàll te am na nañu nekk ci dëkk bi information buñ ko jotee ña leen neex lañ koy wax ñaleen leen naqari duñ leen ko wax moo tax nag ñu bëri yëguñu lu dul ni rek ceeb dugg na fi amuñu ca dara te loolu nag ba président di joxe six milliards bëgg ñëpp nañ ci am moo tax waaye bëggul maanaam ñii am ñiy bañ a am loolu nag danañ ko yëkkati ba président dégg ko nun nag yàlla def ñoo dimbali dañuy defar mais yàquñu dañuy yar mais bokkuñu ci ñi nga xamante ne dañuy yàq dëkk bi ñun fu nu toll ñu ngi wax luy defar ñu ngi dox luy defar ñu ngi dox luy tax dëkk bi am jàmm kon nag bu demee ba dara desul lu dul président xalaat ni war naa teral daara yi mu taral leen aussi ministre de leen ministre de l' éducation aussi Cheikh Oumar Anne moom itam IEF yëpp moo leen ak IA yi moo leen yilif moom itam ñu ngi koy wax ne na xam ni moom doomu Cees la Cheikh Oumar ann doomu Cees la beneen bi ci des itam sunu jarbaat la nun yaayam sunu jigéen la kon bu dara tegoo ci loxoom moom Cheikh Oumar muy séddale am naa yaakaar ni waa Thiès moom doomu cees la Cité Lamine la bokk kon bu ñuy séddale dara réew mi ku ne am sa wàll waaye Thiès waru waruñoo des gannaaw kenn waru leen a xañ kon loolu moo nekkoon kaddu gi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni nag lépp lu fi amati am na ñoo xamante bu buñ ko yëgee dañuy teye information bi ña ko war a yëg duñ leen ko yëgal duñ leen ko wax te aussi seen i nit rek lañ lañ koy wax ña nga xamante ne jàpp nañ ni xëy na du seen i nit duñ leen ko wax ñun nag sunu association amul ku fi nekk ku ko xamul taala Sylla mi nga xamante ne moo nekkoon mair de la ville ñëpp xamoon nañu waañu daara waañu daara nag biñ ko defee ci dëkk bi lépp ci sunuy loxo lañ ko tegoon moo tax amul ku nekk ci dëkk bi ku ñu mës a dégg ni waañu daara biñ koy def jotul wàllam amul am na nit ñoo xamante ne nag lépp lu ñu leen jox ci seen bopp lañ koy yemale kon lii laa bëggoon a wax ma yëkkati kàddu gi jox sunu kilifa gi muy seen Ousmane Ba mu wax ci pulaar ndax nag dëkk bi nag ah maanaam am na ñu dégg wolof waaye am na ñoo xamante nag Ibrahima dégguñu ko kon nag comme am na ñu déggul wolof nag te pulaar rek la ñu dégg te Macky nag xam naa ne dégg na pulaar moo tax ma bëgg seen usmaan wax ko ci pulaar bu ko defee ku déggul olof nga mën ko dégg maa ngi sant di gërëm nag presse bii nga xamante ne ñoom ay partenaire daara ji lañu ay fans daara ju lañu ay nit ñu fa safoo daara ji lañu saabu bu daara bi amee lu ko naqari ñu dagg seen yi teg seen soxla ñu ñëw taxaw jàppale daara ji ba li bëgg a yeggale ba seen wax fa mu bëgg a àgg ñu àggale ko fa kon ñoom yàlla yàlla fay leen te taxawu leen yéen bokku leen yéen presse Thiès bokku leen ci journaliste yi nga xamante ne dañuy taal réew yéen lu baax rek ci ngeen di dox wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. qaala rabbi sharx li sadri wa yassir li amri wa xalul min lisaani yafqahu qawli wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa emin calmina jooɗiɓe ɗo fof emin calmina gardiɗo leydi ndi woni président makki sall e golle makko e darde makko e banggal leydi ndi e banggal qur'ana e banggal diina ala hen fof ko o mankiri kala ɗo jaaɗa e diina président makky sallah darima ha nde yooɗi ha ɓe jettimo hen jettude ganduɗa wonɗo ndi puɗɗi kono ala ɗo ndi haaɗi ɗum noon enenne eɗen goyto wa daara e woni daaraji gadiɗi mawɓe men fof ko ɗo rewi cheikh oumar foutiw ko ɗo rewi seigne bamba ko ɗo rewi malik sy ko ɗo rewi ɓe fof hannde baraji mum nana keddi ala ko heddi ɗum sana hono nde ɗo jonde e needi ndi ɓe nehi almuɓe maɓɓe emin nodda noon président de la république ko wi ko e ko o waɗi ko minen de daara e cosan thies min jiyani hen haydara min nanani hen haydara emin nana tan recensement walla yimɓe ene nodde sa yeehi an kam indema ala toon ɗum noon minen ɗum ene waɗi amen gooƴa holko waɗi ɗum minen walla ko min jangginani walla minen komin jeeyaka hen ɗum on saa emin namdi minen kon président o walla min e ewnago amen rewna ɗum e ministre cheikh oumar an o yettina ɗum ɗo foti yettade wonɓe ɗo e thies guila e gouverneur ha e préfet ha e sous préfet ha e maire uji ɗi foof nani président ko haalinani e taala silla alhamdulillahi rabbil alamin nden enen fof en jettiri ɗum allah en beltorima par ce que si wiyanoma enen fof yen daro darde en mbawa ala balɗo en jaata ɗum noon emin mbiya persida emin ñaaguima ko ɓiɓɓe ma ko almuɓɓe ma kadi ya andu ko an tan min jakori e hunde wona hay goto si ɓennima ko ministre o cheikh oumar ko ɓiɗɗo almudo ko jannguɗo ko annduɗo kono ko nde o dari nde almuɓe fuɗɗi yiide hoore mum ɗum enen fof en jii ɗum heewɓe woni ministre banngal sukaaɓe kono en nanaana kono nde o juuɗi o tinini en ko ɓi almuudo ko almuudo kadi ko ganduɗo ɓurana on noon ko ɓen min noddi yoɓe mballumen kala ko ari ɗo yomin tin par ko winda ɗo ko ɓe mbi waɗama rasas ha maaro ko ari mataw minen nde min tinata woni balɗe joyyi walla ko ɓuri ɗum ɗum fof noon ko wasde min kono wadde minen min tawaka e jangguinoɓe te sukaɓe min jangguinta ɓe fof jinnaɓe mumen ngala doole ɓen mbawa yobde hay goto ɓen noon saɗa jangguina ɗum saabi allah aɗa yiiɗi allah yoɓma allah fewnuma te kala ko jiiɗa hande neɗɗo e yaaha sago mum koye hawre almuda wiya ah nda sadak par ko nelaɗo wi ko sadak fewnoto assadaqatul mukhlisatu dafi'atu lil bala wa yudfi'ul si tawi woni noon sadaka oɗon ene addana en moƴƴere e leydi he kono ene ittana en probléme kadi e leydi he kon cikkumi kay ɓen yahaɓe ne wiya addu mi waɗanma moƴƴere mi ittanma bonde kay ɓen kay cikkumi so hunde ari ɓe poti yeƴƴitade ɗumen par ce ko ɗum haaɗi leydi huɓɓude sinno almum ɓe e leydi ndi huɓɓat en jeehi lew e, e, rewji kewɗi hande probléme ko ɓuura an ene eɗen jannga cukalon janngina ɗum subaka haa kikiiɗe jinnaɗo mum annda hay gooto annda kono aan aɗa dari tan pour joomum janngu kono ko yaltata ɗon ko ene barkinoro neɗɗo wiya ɗum nda allah fewna golli mum fewna alhaaliji mum ɗum min ñaagui persida yo yeccito min ko ari ko haydara ala komin dañi hen no <coughs> no amen o kaaliri ni ko noon tan yaari hay gooto amen par ce ƴeewi ko woni ɗo ko e jaaraji yelotoɗi gila nden cikkumi hannde ɓurɓe min tampude ala kono minen fof hay gooto meeɗa nande emin mbaɗa manifeste walla min jaha e, e beddaji ala min janggina kala ko gonɗa muñ inna allaha ma sabirin kono on a sabiru oɗo ko on min gondi kono emin ñaagui président makkisal e cheikh oumar an e préfet e sous préfet e maire uji ɗi foof saabi allah kamɓene yooɓe daran min ñaganoɓe minenne ko ɗum tan min mbawi ñagade e allah te emin mbaɗi yakar min ƴettata deftere allah emin jangguina subaka ha kikiɗe min ñagano goɗɗo roka jabade ɗum emin emin jakorene allah ɗum noon emin mbi président ko an min kaldi wona goɗɗo ɗum noon si allah hokkima ha feewi yaari ni kalis o wona wona kalis tohoso goto fof ene wawi dañde haqqimum kono si tawi woni ko ɓe tan dañata heddiɓe dañata kono ma taw ɓen wona jangguinoɓe te fof eɗen gandi hande saɗa yaaha kamil ƴewata a mbiya duɗal ala ɗo ɓe mbiya haka e duɗal nan ɗo yooɓe ar ɓe jangganami qur'ana a andi ko ɗon waɗɗa yakara ɓen sukaɓe noɓe jangguirta qur'ana ni allah ma jaabo par ce ko ahalullahi wo hom ko yimɓe allah kadi ko labtuɓe allah ɓe ngala bakkat ɓen ko ñaagui fof allah waɗa ɗum ɗum noon emin ñaagui président de la so nani ewnago amen min balli e makko balle amen min batti e makko haajuji amen min batti e makko ko mana yakar amen fof caggal allah min mbaɗi e makko emin ñaagui noon yo waɗan min ɗum minen noon min goyti ko minen fof ndendi rewi caggal ceerno haruna ba oɗo ko dariɗo ko jambar ko tampuɗo par nde yano ha korif eh, o ari ɗo minen fof almuɓe min jakino kono o dari darde pour yidde ɗum wat allah wallimo walli mine fof min jewi caggal makko emin mbaabi caggal makko kono emin ñaagi préfet o nanowo heen pular walla mo nanata ono fof min ñaagi heen ballal e banngal daraji kono emin jaafuno haa ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa préfet o noon no no no ceerno haari no wiiri ni emin ñaagano on yo allah waɗan on jam yo allah waɗi on sukaaɓe yo allah waɗi on mawɓe yo allah waɗi on mawɓe yen presse bi yalna e yallah barkel ayi dawgen wawi yalna e yallah barkel wa rahmatullahi taala wa